wa maa leen fay di wax onge billahi minna shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaa bu sante yalla julli ci yonent di ñaanal sama papa sama tante ñu yalla yàlla xaare fi dawsi di ñaanal sama yaay yalla fi yalla baye ba ci kanam kanam. ma lan mo wara sa teewaay bien vrai que ni suñu lamb mo moko initier nga ñew nga fekk ci ñom malik ñaay ñom Modja te yéen ñaar seen combat gaay dañ ko doon wax mais lan mo wara sa teewaay. wa xam nga sama teewaay lu ko waral moy sama deret ño xewle muy yof ndax man neewon na fi. tu vois ne woon naa fii bi muy miti dëgg maa ngi woon fii. non non ne woon ci écurie maa ngi nekkoon si Babacar boobu écurie euh, Yoff Mbooloo la n'est-ce pas. yaa foofu laa nekkoon nekk foofu depuis euh, ma xool maa ngi fa nekkoon 2000 bu ma jumalee 2012 maa nga fa woon. waaw di jóg ak moom a daanu di ko nuyu moom tamit sunu grand la sunu grand bu ñu respecté la ginnaaw yàlla bu xamee réer moom am na lu mu si quoi souvent ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sama teewaay fii mooy sama deret ñoo xewle. ak surtout waa waa waa sunu làmb waaw ndax soo waa sunu làmb dañuy jëmale làmb kanam fi ma ñëw fii tey fii laa dëkk ma fi ñëwee xam naa ne man fii laa dëkk moo tax loolee sama wareef tey ma ñëw fi voilà waaw neex na trop ndax liñ liñ def ni maanaam duñ ko jox ko xam ne écurie boo xam ne dafa yaafus waaw écurie bu écurie bu wóolu bërëbam moom nañ koy jox bu ma jumalee ñoom ñoo war seen i bërëb ren kon yoon la ñu jox leen ko voilà ci loolu euh, ba tey rek rek di nga jógee si tournoi bu mag boobu di MMA. waaw nga dem def lu rëy. Mhm. si biir Sénégal si biir yëpp. Mhm. Euh, tey ginnaaw bi nga jógee li nga xam ne mooy MMA tournoi MMA bi. léegi arène bi saison bi tijji ngi en cours. est-ce nga décroché benn affiche boo xam ji daal di ko euh, jàkkaarloo ak yeneen bëri. waaw xam nga tey jii li yàlla suñu borom moo ko xam man xaw ma ko maa ngi sama entraînement di xaat promoteur yi waaw ñu ñaaw nañ jot moom fii ak une semaine suñu combat wala deux semaines incha allah dina taxaw waaw. ñu ñëwaat ci MMA bi ndax gis nañ ni nga compétir macha allah nga nekkoon ni nga xamante ne yow yaa représenté woon Sénégal mais MMA bi yow après ba nga pare lan la def ci yow. waaw lu dul kontaan rek nit ki moom boo amee ndam. da ngay santaat yàlla suñu borom xam ne yàlla suñu borom moo la ko jagleel ki ma doon ki ma doon faytal muy Sofiane Bugisu manuma ko yàlla moo ñu ndam kon ñun dañ ci bu baax a baax di julli sonent bi mu am lu ñu gis ñu gis ni sa compétition bi dem nañ ba Canal Plus dem ñu si bu baax a baax boo xamante ni c'est partout dans le monde ñëpp di la seetaan ñuy wax un sénégalais na benn instant am fu mu bokk ko loolu ba nga gisee sa bopp Plus ak expert fa nekkoon lu def si yow xanaa kontaan ndax euh, mooy li may wax rek si yeneen journaliste mooy leen làmbus Afrique la yem waaw international la ñëpp a koy seetaan te tey jii man bi ma bi ma faytee ba pare li ñu am samay vie ñoom dañ ñoo owaat dañ ñoo owat téléphone du ñuy remercier ndax lii neen mosuñu ko am si MMA bii am kon nga xam ne ñun euh, maanaam ay xale lañ rek dañoo nekk suñu liggéey ci te di ñaax tamit sama mbokki mbër yi bu ñu basé su benn sport nañ ñëw def euh, bu la sa bu la sa temps ñëwal nga def sport bi ndax esport c'est le sport ñun li sport mooy suñu métier. kon bu ñu gis benn sport boo xam ne tey jii dañ siy gagné moo ni gagné si tamit maanaam benn connaissance ah kon dañ siy dugg ndax mën na maa ibbil ay porte yu porte yu bëri te loolu xam naa ko ibbil na ma porte yu rëy